وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكت وإن من شيعته Niass Baye fee daan àndee ak jullitu yàlla yi tey nag sëtam yi doomam yi tey ñëpp ngi dajee fi nekk fii si fekk fii tey si Bayal bi sa maam mu nekk loo xamante ne adduna bi yëpp tey ñu ne tey jii moo nekk seen feet tey salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ziyaare mboolem jullit ñëpp di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal nangal ñu suñu jaamu yàlla yàlla barkeel ñu barkeel suñu njaboot boo leen ci kuréel bay fekkee déwén musal ci lépp fu ñu ragal tey bési iid eh, la iidul kabir di feddali sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mu jële ko ci suñ maam Ibrahima alayhi salaam سنة سو خامنا سنة مؤكدة لا نعم دي بسي بالانتا اف دي بسي ترانجا دي بسي خيول نينا يالا يالا يالا نيو بولا لوليب غرم yàlla guddal seen fan yàggal leen fi may leen wér bi jaay Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu eh, loolu rek la amoon lu ñu wax lu du ñaan ak gërëm ak kontante di rafetlu seen liggéey di leen ñaanal yàlla am na yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko di zaahiran wa baatinan jaay Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaw li ñuy ñaaxaar rek mooy yar bi nga xam ne moom lañ jële woon fii ci pays Cheikh Ibrahima muy njub ak diine ak topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññ leen ci rek ñu gën cee nekk xam ne Baay radiyallahu anhu mooy royteef ci ñun te matal na farataam yëpp ba amul lenn lu mu yóbbaale ci su fekkee lislaam la lislaamam fàttewu ko ba ni muy génne àdduna su fekkee tariqaam la tariqaam tamit fàttewu ko ba ni muy génne àdduna su fekkee lenn la ci sunna yonent bi rek topp na ko ko ci dundam yëpp waxam joju làmboo na lépp isa saara xayru sirtu waraahu wa in xalla yawman fal masiru ba'id yunus sallallahu alayhi wasallam bi doxé doxna bu taxawé man ibrahim amatuma taxaw damay taxaw rek baye mom radiyallahu anhu barki démb ñi ngi tek ben khutbam muy wax ne ñi ngi tay fi pour julli eid su fekké né dewen duñu fekk ñi ngi ñaan yalla ñi fi du fekk leen ci fi maqad inda malikin muqtadir te ñu bëri wax nañ ne julli googu mooy julli itam gu mujj loolu nag dafay tegtale ne moom waarisul muhammad yi la ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam buñ fàcc ne ku ne ci xajatul wida ci la taxawoon tàggu xeet wi ne tey bii bés bu màgg la ci yéen maa ngi yaakaar ne duñ dajewaat ci bés bii ni tey bàyyi nag bu ñëwee def loolu dañuy tegtale ne moom waarisul muhammad yi la kon ñu ngi ñaan yàlla lépp luy teraanga wala xéewal yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi gërëm mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew dëgg yàlla ñu ngi taxawu waa réew mi ndax Sénégal métti na jafe na waaye ñi nga xam ne ñu ngi fi bàyyi ay waajur ñu ngi yónnee seeni àddi ak loo xam ne dañ koy dimbalee seeni mbokk pour ñu jàppale ci bés bi waaye daal euh, borom xam-xam yi war nañoo wax tamit ci tabaski ndax Sénégal niñ ko jëlee métti na lool. da ngay gis ko xamne ne fay japp ne sa farata la ta xamuko te sunna mu akada la rek Yunus sallallahu Alaihi wasallam bi mi ray dafa wax dafa ray ñaari xar benn bi mu ray ko pour bopam benn bi mu ne maa ngi koy ray pour képp ko xamne ci sama xet amuñ tabaski kon bi yunus bi ray rek ray boobu mu rayal xet yi umma bi yep ci la ñëpp duggalé ci kon nañ ko jappé noonu rek xamne l'islam diina ji oyof la ad diinu yusrun walan yushad ahadun fasaddidu wa qarib yombal len diina ji jafewut diina ji yomb la ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla nangul si jaamu yàlla bi jaay Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi xaq qadri wa miqdaar azim ñu sant yàlla bu baax ci bés bi nga xam ne yàlla fekkee nañu fekkee laxaat nañ ko muy feeti jullit yi yëpp ñuy ndokkeel mbooleem jullit yi fuñ mën a nekk ci charq di xarbu fuñ mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen ndokkeel ñu ngi ndokkeel xalifa généraux yi ci dëkk réew mi yëpp di ndokkeel mboolem kuy dund ci senegaal ak pays yi nga xam ne ñoo ñu wër di ñaan yàlla yàlla na yàlla benn leeg jullit yi def leen ñuy benn yàlla def leen ñuy benn ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne mooy suñu royuwaay te yàlla togg ko ci dara lu ci jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim kon suñ demee ba nga xam ne fi nekk nii ci jamono jii nga xam ne lislaam noonu lislaam yi ñu ngi jóg pour songu lislaam ci côté bu nekk jullit yi war nañoo xamaat seen bopp pour nekkaat nekkaat benn kon ñu ñaan yàlla yal na yàlla def ci jullit yi ñu seen xol yi nekk benn li nga xam ne moo gën a wér mooy ne booloo mbooloo buñ koy ut bu ko yàlla di waral pour julli di xamante ci seen biir la buñ ko defee ba semaine bi jot ñëpp dajee ca jumaa ji muy bisab àjjuma koo gisu da nga a xam fan la nekk nga laajte ko doo ko mën a kuñ mën a dimbale ñu dimbale ko buñ demee ba nga xam ne feeti aj àjjuma mooy feeti julli mooy feeti feeti bés bi bés bu ay bi eid eid eidul fitri mooy feeti koor waaye nag feet gi moom aj pare na yàlla waral yàlla lal taabal pour àddina bi yëpp ñun ñëpp ñu génn wane ne dool wane doole lislaam dëgg-dëgg ñu sant yàlla ci loolu bu baax di ñaan yàlla xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane xalifa yàlla na ko yàlla wattu mu yàgg ñoo jiite imaam Cheikh Ahmad Tidiane yàlla yàlla yàgg koo teg ci suñ kanam mu nekk di imaam yàlla may ko wér mbooleem ñi nga xam ne ñu ci kilifaay dëkk bi niki Cheikh yi ak rakkam yi yëpp yal na yàlla wattu doomi bàyyi yëpp wattu mbooleem kilifaay dëkk bi ak muqaddam yi bàyyi daal li mu bëggoon ci nit ñi mooy ñu nekk benn bàyyi li mu ci nit ñi mooy ñu bëggante di baaxante di roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom rek la yàlla dimbale mu nekk koo xam ne dafa dekkal sunna gannaaw bu mu benn arab daf ko bind leetar gannaaw boo xamee ne toog na lu yàgg mënu fii ñëw mu bind leeral mi ne ko yaa cheikhana yaa cheikh al basariyati jamaa inna naa waraaka xuddaamaka anta wa xuddaamal madina ahaba man ahaba wa kariha man kariha wa qad sayada allahu bika al islaama baada man aan daras wa sayadta manaara al islam wa amarta bi maarufin wa nahayta anil munkar wa allamta kitaab allah wa ahyayta sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi jamii anhaa'il buldaan kooku mooy Cheikh Ibrahim mi nga xam ne naari araab yeeg ñëpp dikkal nañ ko ngir baatab li alaaji seenu daan wax ñes radiallahu anhu naan baatab baatab bi indiwu eelam bi moo leen indi waaye su fekkoon ne xam-xam kara bi rek moo leen tudde ne konoon ña nga can ca gànnaar waaye nag itam terewut itam nag dikkee nañ ci booram boori xam-xam laaj nañ ko lu nekk ci xam-xam mu tontu leen tontu ba nga xam ne moom la yonent bi daan tontu kon ñun ñëpp nañ la ah, eexaat xale yi pour ñu nekkaat benn eexaat xale yi pour ñu jàngi eexaat xale yi pour ñu góorgóorlu xam mission Baye mooy lan yal nañu yàlla dimbale ke télévision bi ban la Kossy TV man baal fayda yalla nako yalla matale hadina bi yëpp ñi ngi gërëm mboolem membre yi di ñaanal ñepp jamm yalla na waxtu ñu eid mubarak saïd wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alayhi المطلب وأن الوكيل دلل ولا الظلم والنجوى كما تبسم ولم يحصل إبراهيم أنت لا إله إلا الله متقل دجل وفديناه بذبح عظيم وبلغنا أقول بسم الله ولم يحصل ndokkeel mboolem jullit ñi ci bés bi di ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu suñu tabaski lépp luñ ci def ci ay dundale ci ay yëngatu ci yu baax yàlla ko yàlla ful di ndokkeel mboolem jullit ci Sénégal yi di ndokkeel mooy comme ni ñu ko xamee ñu ëpp ci jullit bi tey ci Sénégal tey la ñu ngi feetu Tabaski muy bés feet boo xam ne euh, ñetti fan yëpp feet la ñetti fan yëpp feet la kon bu fekkee ne tey ñu ëpp ci jullit Sénégal yi moom moom la ñuy feetu liñ jàpp mooy weeru dëgg yi dafa mbatala woon mm, fanweeri fan kon àndoo boobu nga xam ne moom la julli ci Sénégal yi àndoo am na ñoo xam ne tabaski woon démb ñoom itam ñu ngi leen di ndokkeel li am solo daal mooy julli ci yëpp nekk benn ndax genn uute ji itam du lor ixtilaafu ummati ixtilaafu ulama rahmatun li ummati li yonent bi wax uute gi nga xam ne la borom xam-xam yi xeet yi uute loolu yërmande la ñeel xeet kon euh, ñu ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel xalifa bi ndokkeel imaam di ndokkeel mboolem jullit yi yoo xam ne nekk Sénégal Sénégal. lan ngay ñaan ñoom ñi nga xamante ne doomu pays bi e la ñuy bitim réew seen xel ak seen xaaj yi

nga xam ne yaa ngi dellu saa te sa saan bi nga xam ne moom nga bàyyi ku ci nekk rek daal li nga leen di jaax mooy nañ xam seen cosaan xam ne fi leen jógee xam lan mooy baaxe pays bi te fépp fu nekk rek nga nekkal fa pays bi nga xam ne fu nekk rek nga xam ne ni ñu ngi jógee ci pays Medina Baye waaw. ah wax ji nga wax nekk na lu am maanaa waaye. man Mamadou Lamine ñu ngi laa tudd doomi fii ñu ngi bu ansaaru diin ah euh, ba nga xam ne loolu mënu wax ne jaaduwut ndax julli ba ñetti fan yàlla nee na normal na donc war naa mën a nekk te këli yaa ngi këlifa yaa su may këlifa ñu ngi fi lott naa wax dëgg yàlla su may këlifa toog ñu sant ñes mam lu may wax man macha loolu laa moom ma ci wax ñu ngi jéggalu joxaat ñaar maam jumtu yàlla yi waxtu boobu loolu di baalu ak dañ ah ñaanal yàlla réew mi ñaanal ko njiiti réew mi ak ñu màndal ñaanal kilifa diine yi ñaanal kilifa diine yi bu baax kilifa diine ñaanal bu baax loolu lu solo la kon nañ ne ñu wax ñu ne ñaanal yàlla yàlla yombale leen yem bi su ma xalifa bi soo naa métti ñes maa ko ñaan yàlla man nu ma mel yàlla ak bàyyi tax moo mel yàlla ak bàyyi tax bàyyi rek a mun lii bàyyi rek lii maa ngi sant yàlla bu baax waaw kay man maa ngi dëkk lew na ñeseen te fi mu ngi waaw. waaw li ñuy dénkaan mooy ñu góorgóorlu jéem a tàppe xol yi xol nekk benn lii du dara démb julli la tey julli la démb bésab julli la tey bésab julli la kon loolu war ta tax ji àjjana kenn ku nekk la la doy ci àdduna ak man la doyee ba jaamu ko yàlla dafa wax ne wattaqullaaha mastataatu ragal leen yàlla ñu ngeen ko mënee te teeg teeg ay ndigalam nga def ko bëri ay tereem ba bàyyi loolu moo am solo na xol yi set ñu énaan ci jàmm ñu ci جارت ما قبل السليم كل سبيل الله من من بنك تسليم من دار من يرم يسروا ولا تعسروا يوم الليل بلن جفر أن يعلم أن الجنة تبارك باي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله loolu laa bëggoon ak yow sëriñ bi xam na fi ñaan bu baax a baax ndax yow da ngay da ngay warlu ñaan gi di am te tey wax dëgg yàlla suñu imam suñu xalifa ñoo fi suñu lépp te wax bu mu dajee si mbooloo rek ñu ngi leen ñaan la kilifa leen kilifa yu jub leen kilifa yu jaar ci yoon leen ñu ngi jàpp jullit nag daf leen ñuy xaadir amuñ keneen ñoom jullit lañ yàlla jullit tax na fan yi boo demee ci seen fa fekk fekk bu nekk euh, tarixa bu fa fekk mu ñëw di ut lu mel ni yàlla te duñ la duñ la ñax xool duñ la wax dara dañ koy def ngir yàlla kon ñoom jar nañoo yal na yàlla may leen kon bu gaaw wér gi yaram barke barke yaa rabbil alamin kon nu ma ko waxee ñu sant yàlla bu baax dund ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ñu santee ko Mawlana Cheikh Ibrahim mu ñu fekk ci lëndëm dugal ñu ci leer xott suñ xol yi def ci yàlla fii nag ñu nekk nii nag mooy jotaay bi nga xam ni mooy jotaayu Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass fii di Cham nga xam ne lañ doon jullee feet ak moom tey suñ ñëwee jugee waat dellu siwaat suñ dëkk pour jullee fi barkeelu ko dañ cey sant yàlla ñëw fekk fi njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim bi kon lu may waxee rek dama naan bàyyi mu fi ba tey te moom lañ xam moom Cheikh Ibrahima Niass mooy lan tey su ma lay wax ne moom lañ xam mooy lan mooy Cheikh Ibrahima Niass moom mosu fee jógee ndax ay doomam ñu ngi fi te damay wax na ñun taalibe yi balaa ñoo am lu ñu neex ñu jàkkaarloog doomu Cheikh Ibrahima Niass yi di tëbb ci ñoom ngir seen bàyyi kon nag suñu yàlla defee ñu ñëw tey gis mbiri na neex gëm neex ndax dara neexalu ko lu dul yàlla rek moo fi am ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul fooy wër ci àdduna bi te duggoo biir Medina rek salaamaaleykum te doo am yëg-yëgu yàlla ji nga xam ne moo am biir mbir mi loolu nag yàlla moo ko may Mawlana Cheikh Ibrahim gis doy na yàlla waaye nag dugg ci dëkkam bi ñam nga lépp kon nag dañuy wax ne alhamdulilah dañu yàlla may lii ñu ngi toog suñu wet Cheikh Abdourahman doomu Mawlana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne duñ ko weerante duñ ko naataable ci liggéeyal bàyyam suñu doomu baye tamit doomu Cheikh Ousmane Faty muy Cheikh Ibrahim di khalifam mu ngi ni tok suñu wet waye so xolé rek da nga gis ni ñëpp ñu fi toog rek ak doomu Cheikh Ibrahim Niass lii dafa neex ci biir xol mu ngi ñaan yàlla nak yàlla bàyyil ñu fi suñu khalifa bi ba ci kanam ak kanam muy Cheikh Ahmed Tijani ibrahim Niass parce que nit ko xamni la li mu am tey nii dafa xidmal bayam ca démb ak tey moo tax yàlla may ko lii yëpp mu xam tey kon ñu koy ñaanal yàlla ci xidma gëm doon xidma ak baayam ak fam ko féete woon yàlla yàlla ko ci ay gudd fan yàlla moo xam heure bu mu jël ko jaamam waaye yàlla bu ñu jëlee suñu xalifa bi damay wax na na toog ba doyal ci àdduna ñu soog fee jógee ñu ngi gërëm télé bi nga xam ne suñu télé la di wax ne tey ci événement bi di ko lancé ñëpp parce que télé bi nga xam ne moo ñuy dimbale jël ñu ci àdduna bi yëpp tey soo ne Kossy TV amul benn programme bu lay raw ci biir adaraat Cheikh Ibrahima Niass kon nag ñu ngi ñaan taalibe nañ ñëw jàppale télé bi fan yi yënga matériel yi nga xam ne sàccoon nañ ko ci télé bi waaye ñun taaliba yi duñ toog rek ñu yaafuus am nañ lu ñuy waneel luñ bëgg ndax foo gis rek li ñu tardeel ñun waa kër Cheikh Ibrahim mooy li nga xam ne ñu koy gis waaye tey am nañ ko foo dugg ci net bi soo ne Kossy TV nga gis lépp amul lenn lu lay raw kon taalibe yi nañ góorgóorlu ñu dimbale Kossy TV gën koo dooleel gën koo may doole ba nga xam ne international bi niñ ciy gën a yëngatu loolu maa ngi koy ñaan taalibe di ñaan ci barke Cheikh Ibrahim yàlla yàlla may leen loolu waaw ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yàlla moo ñu mayoon ñu fekkee ko daaw mayan nañu ñu fekkee ko ren ñu ngi sant yàlla ci loolu di ndokel julit ñep ci bés bu mag bi nga xamne moy fetu tabaski di ci ndokel mbollem njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim ay dooma ak i sëtam way di ndokel khalifa bi diko ñaanal yàlla wér ak katan ak man-man yàlla baye ko sago ak xelam mag léppam ba sembu yi nga xamne mom la bëgg def mu def ko ba àggali ko ba sembu yeneen noonu lañ koy ñaanalee suñ mag tamit Fatimatu Zahra ak mbooleem njaboot Cheikh Ibrahim yu jigéen di ko ñaanal mbooleem njaboot Cheikh Ibrahim yu góor rawatina Cheikh Mahi mi nga xam ne mooy mudirul mahad di firikati alxuraan bu mag di ko ñaanal imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ci taxawaayam ci dëkk bi ci réew mi ci jullit yi ci doomi aadama yi ci jëf ju rëy nga xam ne defati na ko waaye def koo donn ci maamam donn ko ci baayam doon na ko ci yaayam yooyu lépp mooy mbaaxu pay bi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it wér ak at yu bëree bëri di ko eh, ñaanal wér di ko ñaanal yàlla man-man moom it ak kàttan ndax jëf ju rafet yi nga xam ne mu ngi koy def ci xew xew yi diine yi muy korité muy tabaski muy gàmm ak lu duut sax xewi diine loolu ñu ngi koy ñaanal yàlla ñàll sax te yokk di ko ñaanal pay lépp di ñaan yàlla yàlla sàmm njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim ak njabooti Maam Xaaji Abdoulaye Niass ak mbooleem njabooti kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di jëf-jëf joo xam ne ñu ngi dimbale doomi aadama yi ci luñ man ci luñ xam ak luñ xamut ñuy ñaanal xalifa yëpp yàlla yàggal leen fi may leen wér ak mbooleem jullit yi di ñaan réew mi dàq nañ yow yàlla bés bi ñu ngi la ciy ñaan nga sotti sa ndox mi ndoxam barke julit ñi jaxle nañ réew mi jaxle nañ ci ñàkk taw bi nga xam ne waaye lépp ñu ngi tuub ñun ñëpp di ñaan yàlla ci bés bi yàlla ubbi taw bi ci sénégal yëpp ak ci afrique yëpp di nuyu cheikh aboubacar ñes ibrahim ñes ci waxam yu rafet yi nga xam ne wax na ko waaye lépp ci moom la ci xolam bu rafet ci jëfam yu rafet ñu koy ñaanal yàlla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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دفر لين تخواي تنجن جبلو قبلة دفر لين تخواي تنجن جبلو قبلة طيب،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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى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 والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغاها إذ انبعث أشقاها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 أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله المنعم المتفضل بتوالي الواحد الأحد المتجلي بالجمال في سائر الأيام وليالي الحنان المنان بالإيجاد وتوالي الإمداد الحي القيوم الهادي إلى سبيل الرشاد المبدئ المعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر من كل تكبير وهو الحكيم القدير أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه ربي ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رفيع الدرجات ذو العرش وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما يعقلها إلا العالمون وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيها ولا مماثلة ولا معاندة شهادة تكسب قائلها أعلى مراتب الإيمان وتنجيه من أهوال النيران وتسكنه في على فرادس الجنان والصلاة والسلام على مجمع شأنه وسر حكمته والنور خلقه وعين عينه أتى للمثاني بصفات الحقية والخلقية سيد الكون إنسه وجني عيد رحمة ربانية البشير النذير خادم الحضرة القدسية الموحد له بمطلق تقرير سيدنا محمد الفاتح الخاتم من النبوة والولاية وتجلياته في غيب المدبر العالم ورضوان من الله العزيز الغفار عن ناصره بالحق في عالم الغيب والشهادة صديقه العاملين بشريعته وتكاليفه المجاهدين في الله أحسن مجاهدة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد كنا سنتي الله جلي جنان تبي صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اين جامي عليه فاستمعوا دغلن وانصتوا سكنتلن رعاكم الله يلا ساملن يلا ولتعلم خملن ان خالقكم نك اجي بن سنك يلا ما خلقكم بندد لين ابدا غير فونتو يلا بندد در غير فونتو وحنا جي القران افحسبتم انما خلقناكم عبثا وحنا فراني دمنا وما خلقت الجن وليس إلا ليعبدون من إنما خلقناك بننم الجن جن وليس أغنيت العبادة غير جامكو فجددوا إيسلن الإيمان جم يالا من إن إيسل سن جم يالا لا إله إلا الله محمد رسول الله من وطلبوا ساكلين زيارته دولكم من جم يالا قويتم نجي ساكوختونك مويدولكم ndax lépp lo xamne ne nekkul di dolleeku rek mu ngay wàññeeku mu ne bil ihsan ci hewenal ci jëf-jëf yu baax yi ci la gëm yàlla di dole ko fi kulli zamanin ci bépp jamono wa makaanin nak bépp barab wa in min awkadi bokk na ci li gën fa dem mutaabaata nabiyhi top yonent bi sayyidina muhammad sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam mu ne bokk na ci li gën fadu ci lolu top yonent bi fil aqwal ci wax yi wal afaali ak jëf is huwa ngir loolu ay nu taqwa mooy jëmmi ragal yàlla mu topp yonantu bi ci ay waxam ak ay jëfam mu loolu mooy jëmmi ragal yàlla yàlla wax na ci alquran ne lan yanaala allah mayetit yàlla luxuumuha yàppi tabaski yi wala dimaauha du caageen ay damu seen walakin li fi nekk yanaaluhu dana maye ko moom yàlla a taqwa ragal yàlla min kum gu jógee ci yéen mu yàlla yàppi tabaski du duñu maye mukk am ko duñ maye mukk itam damm yi am ko li koy maye dëgg-dëgg mooy ragal yàlla rek bu jógee fi ñun mu ne wa min ahami dalika bokk na ci léegi li ñu war a gën a itteewoo al istinaanu sunnahu bi sunnatihi ci sunnaam moom yonentu bi sallallahu alayhi ndax ne na képp koo xam ne itteewoo nga sunnaam di ko doxal yaag moom ay bokk dëkk ci aljanna fi iidul udhiyati mu ne sunna boobu nag bi ci gën a fadewu tey mooy iidi tabaski yi ñu nekk alladi huwa moom azamul iidayni mooy gën ja màgg ci ñaari iid ñaari iid yi ci jublu korite ak tabaski tabaski nag mooy tey iid jiit waaye mu ne tabaski boo gën a màgg almashrui bada buñ waral fi zamani abina ci jamonoy baay suñu ibrahim ibrahim alxalil kadisal mu ne iidi tabaski يالان كو ورال سي جامونو سوني با ابراهيم الخليل حيث امرافو ديغاليفكو بذبح ولده تيراند دومم اسحاق اسحاق او اسماعيل ولا اسماعيل دا فاي ندي ñar ñep ndax dafa am ñu xane اسحاق لا am ñu xane اسماعيل لا waye li nga xamne mo gëna wër ci xam xam اسماعيل لا ndax اسماعيل مو نيكون فوفو ci makka wala ofadaa wota jot ko bil kabshi ci xaaf aljëniin jëniin kii yàlla mu ne yàlla nag moo ko jotee xaaf moo xam ne moom lañ rey ba rey ko moom ismail waaye bi yàlla joxe yonent yàlla ibrahim ndigal pour mu rey ko yonent yàlla ibrahim nangu na doomam ismail nangu na waaye nag yàlla moo mujj jot ko yónnee xaaf moo xam ne moom lañ jotee ismail loolu moo waral bis bi bu jotee fu nekk danañ fa ray xar ngir sunnaay ci ala ibrahim moom nga xamne moy mooy xarit yalla ba yalla waxe na japp na ibrahim musma suma xarit wa taxada allah ibrahim xalilan malaika yi dañ ko waxne lol loolu ta nek ndax ibrahim dafa am bakkan Ibrahim dafa am alal Ibrahim dafa am jabot. ta nek mukk sa xarit yalla ne dem len ngeen natou ko ñu dem fekk ibrahim mu ngi am fukki xajal ñaar ndax mom ku won alal la Mom yonent yàlla ibrahim xaj bu nekk mu la takkal caqi urus jibril ñëw ne ko urus bii nga takkal sa xaj yi ci laa buggu mu ne ko tuddal yàlla jibril tudd yàlla mu ne ko may naa la ñetteeli xaaj bi tuddaatal mu tuddaat yàlla mu ne ko may naa la beneen ñetteel bi mu ne ko tuddaatal yàlla mu tuddaat yàlla mu ne ko ñett bi ci des may naa la ko tuddal yàlla mu tudd yàlla mu ne ko man sax yaa ma moom fi mu ne sa jaam laa ba mu delloo ca boromam boromam ne ko noo fekk ki ma la waxoon ne suma xarit la mu ne ko fekk naa ko mu nekk di sa jaam nekk di sa xarit yow rek la bëgg ndax nangu naa ñàkk alalam nangu naa ñàkk boppam ngir yow moo tax yonent yàlla ibrahim yàlla jàppee ko xalil jàppee ko xarit moom nag li ko uutaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy xalil waaye yonent bi mooy xabib xalil mooy koo xam ne lum ñaan ñu may ko ko Habib nag mooy ko xam ne dañ koy may balaa ñaan loolu la ko yonent bi tiimee sallallahu alayhi wa sallam fa saara tam mujj moom tabaski sunnatan di sunna baaqiyatan ba di aji des ilaa yawmina ba bis suñu hada mu ne nag ci la jógee nekk sunna boo xam ne des na di nekk sunna ba ci suñ bisi tay bi waye moom tabaski afdalu moo gën mina sadaqati ci saraxe mu ne tabaski tay moo gën saraxe wal itqi ak goreel jaam moo gën itam nga goreel jaam wa qiila waxeef na ne bil wujubi ci waram wax nañ ne sax dafa war am na ñu ko waral ci borom xam-xam yi fa man taraka képp ku na mu ko wowata moom xaadirun aji man la mu ko aji atan la mu ko asima bakkaar na mu ne képp ku bàyyi tabaski te man nga ko booba nga xam ne bakar nga yonent bi sax wax na ne képp ku ko manta defe ko bul jege suñ julleekaay bii loolu nag jar na képp koo xam ne man na ko rek nga def ko wate ji bu dana war moom tabaski bi nasri ci nisar soo ko nisaree rek dafay daldi war o bi tax ak ci ràññeel ràññeel mooy nga am gàtt ne gàtt bii day fas naa eena tabaske ko su boobaa rek tabaski daf cee daldi war wata ta ayanu dana gën a ràññeeku nag isal tazamaha su fekkee ne war warlul na ko moom nit kii bi lisaani ci làmmiñam bi niyati ci ay na inda shiraay fa jënd ga ba ngay jënd benn gàtt su fekkee lan ca ay la mooy tabaski moom itam tabaski dal na ci war alal maaruuf ci luñ xam wal maamuru kuñ digal nag bi ci tabaski huwa moom mooy kan mustatiun aji atan gayru xaajin koo xam ne nekkoo di aj nekk fële ci minantay والمستطيع واي اجاتنك من لا يحتاج ما قبن حاجته لثمانيها شي جام في العام شي ادمي من كي اتنت بس كن ما كو خمن سوخلو نجي جي شي لي دسي ادمي لي دسي ادمي نك مو ذو الحكمه ذو الحجاب لا يخول ñar fukki fan mo dess ci atmi waye su fekke ne daf ko labal nak mu nek atam lemu su boba kon tebeske yimi inda malik tukkee na fa malik al imam kay ribaani ngër mi mu ne loolu wax imaamu malik la wala yu tasallafu defut leb lahaa ñeel tabaski mu ne jarul ngay leb su fekkee amoo ko ala xilaafin ci uute fi dalika ci loolu mu ne waaye loolu uute nañ ci wa man indahu képp koo xam ne nekk na fi moom sawbaani ñaari mbubu ahaduhuma yakfi mu ne képp koo xam ne am nga ñaari mbubu te benn ci ñaari mbubu yooyu doy na la baaxa war naa jaay laha ñeel tabaska saaniya ji ñaareel ja mu ne kooku war naa jaay mbuum ñaareel bi tabaske ko wa shartuha moom tabaski an yakuna mooy ba mu nekkat mina naami ci juri kër yi mu na ci juri kër rek lañ koy def ni kii wala xar wala nag wala gëlëm wal afdalu waaye la gën a daanu mooy xar sumal maïs topp béy sumal baqaru topp nag sumal ibilu topp gëlëm wa samiinu bu duuf walfaxlu kuuy wal aqranu bu béjjanu afdalu moo gën moo gën min gayrihi lu dul ñoom mu ne bu duuf te am béjjen te nekk kuy moo gën lu dul moom mu ne wa aqalu maa yuziu waaye la gën a new ci la dana doy ci tabaski aljazaaw mooy jazaaw min addaadi ci xar su fekkee ci xar la jazaaw mooy li gën a new jazaaw nag boo ko bëggee xam mooy boo xam ne am na at ba dugg ci atam ñaareel mi walla bu am fukki weer wala bu am juróom-ñetti weer ci jenn wax walla bu am juróom-benn weer ci jeneen wax su fekkee nag na ci bay la ak gileem ak nag seen yu moo ca gën seen yu nag ci bay mooy bu am ñaari at am na ñu wax itam ne mooy bu am benn at ba dugg ci atam ñaareel mi mu ne su fekkee ci nag la nag mooy nag woo xam ne am na ñaari at ba dugg ci atam ñetteel mi su fekkee ci gëlem la mooy gëlem goo xam ne am na juróom benn at mu ne tere nañ al arjaaw mooy bu làggi tag tere nañ ci tabaski gàtt boo xam ne dafa làggi wala awra wala awra yi ak bu pat wal maridati ak bu feebar wal ajfa ak bu lapp wal maksuratul xarni ak buñ damu béjënam إذا كان سفك أنك نمو يدمي دينك والبشمة أكبو فر والمقطعة الأذن أكبو دم بندق نفهم وذن بأجن بي بندق نفهم بأجن بي تم ترى نيكو والسمع أكبو كتمو بكتمو موي بلاب بلاب بلاب بلاب بأي حم دفعي ونوية ترى فينا أيضا عن الخرقاي تبون بن نفهم والشرقاي أكبو قط نفهم والمقابلة أكبو يفشي كنمو والمدابرات اك بن جوف سي غناو واي مون يوي ييب دافا نك رك لو خامنا دافا تري مدغا محمول على نفي الكمال مون دافا تري مدغا واي بو سي نيت سسي من نكو تبسكي ووقتها مام تبسكم نك في اليوم تي بسم الله الاول بدا نك كوم سوني بيسي تاي بي اك الخميس اك غناو سوبا الجمعه ньо نيت فري تبسكي من ايامها في فرامي الثلاثه يدي عند صلاة العيد فجلق عيد وذبح الإمام أقرأك إلمان وينبغي لنا هلت إلمان أن يبرزها مجنة بس كام إلى المصلى جمت جليك عبا فإن لم يفعل فك يدف اللولو ففي إزاء من ذبح قبله نكنتي بيكران لن يكم قولان ياري وخ أمني وحنا أمنا تبسك أمني وحنا يبرك أمجه وأكرم له وآخر وقت ذبحي مجنتيلي وقت رندي xurubu shams yi mooy soob jant bi min al yawmi ci bis bi asaalisi ba daaj ñetteel mu ne waxtu nga xam ne moo mujj nag ci rendi mooy bisi ñetteel bi bu jant bi sooyee ni ki ajjuma ji waye tawalla dana méngoo zabxaha rendeem saaxibuha boromam wa in kaana dina nekk na mu imraatan di jigéen mu ne tabaski nag nit ku nekk yaay rey sa tabaski su fekkee na jigéen nga sax te mën a rendi yaa war a rendi sa bopp فإن استناب سفك أوتل نمو ووتمم قادر أجي أت النمو ولا أجي من لمكو أجزأه دانكو آي وبيس بنا ما سنع لم دف من أبو أوت لكل رنل تمنغ من دوينا لهاي نغل دف بنا فإن عجز سفك أوت النمو استناب موتل ويحضر تمويته وينوي تموي أين والذبح رندي المختار قد قلتن بعد البسمة قلنا واه بسم الله الرحمن الرحيم واستقبال القبلة أجب القبلة قتل حلقه من موي دق بروخي والودا جينا أجاري لو داجي ويضع ودنا تك السكينة باكبي في المذبح تيرين دكايبي ويمره دنا كرمبل فيه شمون مرنا كرمبل حتى قطع بم دق الخرزة قربا وهذا لي متدو هو موم الذبح موي رندي خمنا موم لن wala yaaxudu jëltit naa'ibu aji huutu shay'an dara boo uutoo nit rayal ko xaram nag doo jël dara ci yàpp woo lum la may rek waaye doo jël ne ku maa may fay lu toll ni moom wala yajuuzu daganut bayu shay'in jaay dara ci yàppam wa an laa yu ak bu mu yoolanteet wala yu baadi la ak bu mu wattanteet jox ma ci sa yàpp ma jox la ci suma yàpp loolu yëpp daganut wa qad daxaa tabaskee na sallallahu alayhi wa بكبشيني تي نياري قاف ام لا حيني يدي نياري واي رافيت اقرانني يدي نياري واي بجنو ينظران دانن خول في سوادين تي نيول ويبركان دانن غور في سوادين تي نيول ويمشيان دانن دوخ في سوادين تي نيول ذبحوا ما رند دانن موم يونتي صلى الله عليه وسلم بيدي تي لخوم با شريفتي با داجي تاد وقالت واخ بسم الله بسم الله الله اكبر اللهم يا ربي الله hada tabaski gilee an nii jógee na fi man am man lam yu daxi ak ci képp ko xam ne tuk tabaski wut ci suma xeet moo tax soo demee ba mënoo ko rek yonent bi utoo na la ci wa qaala wax na alayhi salaatu wassalaam ne azimu màggal leen daxayaakum ay tabaski seen fa innaha naka ñoom mata yaakum ñooy war waay seen ala siraat ci kaw siraat mu ne nu ñu mën a màggale tabaski nag nañ ko def ndax moom la ñuy war ci siraat وعن جلي نجفي مم أيضا مم ينتبه ما من عبد ده بن جام توجه باب جبل نمو بأطحيته تبس كيم إلى القبلة جام قبلة إلا كان دلنك نمو دموها درتم وفرثها أكبب وصوفها أكسوفس حسنات بأيهو محضرات يدوين تول في ميزانه من دخائجهم يوم القيامة تبس بنج وعن ابن عباس جلن ابن عباس مرفوعا موي حديث جون يكدي جيمي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم من ما من صدقه امول بن سرخ بعد صله الرحم غناو جوكم بوك افضل بغن من اراقه الدم تي تور درت بيست مسكبي وفي الحديث جلن نجي حديث من يتجلى دنا فاج مولانا برام سونو في يوم العيد تي بيس عيد دي زوره غير نيمكو كو المؤمنون وي غمني فيعتقت موي غريل الوفا اي جنه mu ne bis tey bi yàlla dana ci feeñ feeñuwaay boo xam ne jullit ñi ngir ñu ne nemmeeku ko mu goreel ay junne ci ñoom ñi muy goreel sax minal mujrimiina ci way junaa yi lañ bokk mooy defkat yu bon ñooñu lay goreel bis tey wal malaayikatu te fekk malaaka yi shuhudun way seede lañu li yashhadu ngir ñu seede azima afwihi màggaa yi jéggaleem anil abidi ci jaami wa sadaqatu saraxa fil idati ñaari idi افضل موغن من غيرها تشول نيوم ñaar bi 70 درجه تن ci juroom درجه والله يا الله نك ضعيف دنا فلل لمن يشاء ñal ko ko sop ويندبو sop nañ التكبير تكبير دي الله اكبر من ظهر هذا اليوم تشي تصبار بس بي الى صبح رابعه بجي صباك بس ينتل بي دبر كل فريضه غنا ويب فرتا واللفظ بابا الله اكبر الله اكبر لا وتاخير الفطور اجي يخل دكتور limaaru wiya ngir li solof na ko annahu nekk koor ak tey gi lim gàtt-gàtt yaadilu dana toll toll siyaama sittati alaafi sanatin koor ak juróom-benni at juróom-benni junne at koor gi mel ne or nga juróom-benni junne ak sangu sopp nañ ko tey wa tatayubun ak gëttu wa tasdayinun ak taarlu walaw fi xaqi man laa yusalli dana ci xaqi ka julliwul la jigen jigen xamna dafa am bax jigen ba julliwul sax warna solo solu gatu warna dem ci kay ba waye jigen yi nak nañ beru wal mashdah wal jahru akbiral. bi takbir ci kabar lol tam sop nañ ko ila an yajee ba bay dikke al imaamu iman aw yaqumu wala muy taxaw li salaati ñeel julli ga ba bay iman di ñewé wala muy taxawal julli wa jaa aku dikena na mu min tariqin ci yoon fal na mu dellu min tarixin ci yoon uxra beneen ku ñëwee yoon nag sopp nañ nga demee beneen yoon ngir ñaari yoon yépp seedal la pencam yàlla wala nga sarax miskin yi ci yoon wi booy dem booy dikk sarax miskin yi ci yoon wale wala nga wane màggaa yi lislaam ci ñaari yoon yépp moo tax sopp nañ loolu wattaqullaha ragal leen yàlla alladi yàlla ma nga xam ne te saa aluna da ngeen laajante bii ci moom mu ne nañ ragal yàlla mi nga xam ne ci moom la ñuy laajante defal ma ngir yàlla baal ma ngir yàlla jox ma ngir yàlla yàlla moomu nañ ko ragal wal arxaama itam nañ wattu itam mbokk gi mu ne mbokk gi nañ ko wattu te nañ ko jokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga jokk say mbokk ñoom dañ laa dëddu sax inna laa naka yàlla kaana ma sumu dañ raqiban di aji fuglu aleykum ci yéen waskurullah tudd leen yàlla kathiran tudd gu di aji bari mu ne nañ tudd yàlla lu bari tudd yàlla lu bari fa yàlla nag lu bari ay doon ndax lu bari ci borom alal bokkut ak lu bari ci miskin te yàlla moom doylu na wala skep moo tax tudd ko lu baree bari la war a doon booy tëdd mën nga koo tudd booy toog mën nga koo tudd boo taxawee mën nga koo tudd booy dem mën nga koo tudd allakum boo yeen tuflixuuna ngeen texe wa anfiqu dundal leen fi sabilillahi ci yooni yàlla mën nañ dundale ci yooni yàlla waalamu xam leen ne anna maa indakum laka li nekk fi yéen yan fadu dana jeex wa maa indallaahi waaye la nekk fa yàlla baaqin aji des la moo képp ko xam ne wér na leen ne la nekk fi yow dana jeex benn nga dem bàyyi ko fi wala mu dem bàyyi la fi mu ne te la nekk fa yàlla du jeex kon da dund dundale ngir yàlla waraaw sàmm leen asalaata julli fil jamaati ci mbooloo mu ne nañ sàmm jullig mbooloo jullig mbooloo gën a gënee na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom ñaar wala ñaar fukki daraja ak juróom ci riwaaya imaamu Malik taxaw na ay at bi sikk ndax ko julli yow kenn sax am nga julli ba mu gisee nag xadis bi yonent bi waxee ne julli mbooloo moo gën julli kenn ñaar fukk ak juróom ñaar moo xam ne am nga julli waaye daraja mooy néew waaye kum amoon marchandise moo xam ne boo ko jaayee fii benn ngay am boo génnee ba ci dëkk ba tuuti am ñaar fukk ak juróom-ñaar yaakaar naa ne da nga génn dem ba ci dëkk ba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 di koy ziyaara di koy ndokkee itam ci bés bu màgg bii di ndokkeel mbooleem doomi bàyyi ak seeni doomi bàyyi di ndokkeel itam sett su kawe sii nga xam ne ñooy saytu pay bi di dundal ci farata ak sunna sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla nangu ñu suñuy mboolee mi jaamu yàlla yaara bi ak suñuy dundale ak suñuy ñaan yaara bi war na nekk suñu ndimbal ci li ak ci lu nëbbu yàlla jàpp loxol kenn ku nekk ci ñun jëme ko ca lam bëgg ak ca lam gërëm yaara bi loolu yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal yaara bi sëriñ mu ngi ndokkee ñépp sëriñ bi ne mu ngi ndokkeel préfet bi nga xam ne moo fi teewit ci gouvernement bi di mbo di ndokkeel mbooleem kilifa yi nga xam ne war nañ leen a ndokkeel rawatina borom réew mi kii nga xam ne moo di Macky moom mi nga xam ne moo jiite réew mi sëriñ bi ne mu ngi koy nekk di ndimbalam yaara bi ba nga xam ne dana mën a xàggale réew mi ca fa nga xam ne fa lañ bëgg mi xàgg yaara bi sëriñ bi mu ngi sant soxnaam itam di rafetlu taxawaayam yal na yàlla nangul ñu yaara bi yal na yàlla barkeel yëngatu yeeg dali yaara bi ak lépp lu xaji ci mi yaara bi ak fuñ mën di nekkee ci àddina bi yaara yal na yàlla nekk di seen dimbal yaa rabbi jàpp ci seen loxo jëmee ci lépp bëgg ak jàpp ci loxol kenn ku nekk ci ñun jëmee ko ca lam bëgg ak ca lam gërëm yaa rabbi yàlla mën na loolu yépp yal na ko yàlla def yaa rabbi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci barke baay ak baayam allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim na ku nekk jàng fatiha benn yoon ñetti salaatul fatihi آمين آمين يا رب Mon nom c'est Mohamed Makarwa. je suis le préfet du département de Il me semble que c'est votre première prière ici depuis que vous, êtes, vous êtes euh, oui, c'est ma première euh, prière de euh, Tabaski, mais la deuxième parce que j'ai prié ici en fait euh, à la fin du mois de Ramadan. Mon impression que j'ai, c'est une bonne impression parce que je suis là à ma qualité donc de représentant du président de la République parce que ce sont mes fonctions de représentation qui m'ont conduit aujourd'hui à être à la tête de la délégation représentant le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement ici au niveau donc de la cité religieuse de Medina Bay à l'occasion de l'Aïd El Kébi, communément appelée chez nous la fête de Tabaski. Nous avons joué notre rôle de représentation et à l'occasion également nous avons beaucoup apprécié les sermons de l'imam Cheikh Tidjan Sissé qui nous a rappelé les principaux préceptes de l'islam mais également sur la conduite à tenir et les pratiques à faire pour une bonne fête en fait de Haït. Également, nous avons apprécié le message qui a été délivré par l'imam Ratib de Medina Bay, Cheikh Tidjan qui a également Cheikh Tidjan le, khalif général, le général de, Medina Bay, qui a tenu également à délivrer son message à l'endroit de l'ensemble des disciples et des fidèles en leur rappelant également la bonne conduite en fait de musulmans mais à l'occasion il a formulé des prières à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit également dans l'ensemble de notre pays, afin que notre pays puisse connaître le développement dans la stabilité, la paix, mais également il a formulé des prières pour une bonne exécution des projets déjà engagés par le chef de l'État, son excellent chez Macky Merci préfet. Donc message

kaddu gi ki nga xamante ni moom mooy xalif général Medina bàyyi di Cheikh Tidiane ñaas moom tamit yëkkati na kàddu bi mu yëkkatee kàddu nag ñaanal nañ képp fi teew muy jullit ñi fi teew yëpp muy taalibe fi teew yëpp waaye tamit yëkkati na kàddu ngir gërëm jaajëfal ak ñaanal ki nga ni moom mooy njiit réew mi son excellence monsieur Macky Sall te ñaan na tamit ngir mbëbëtañ bi mu am ci réew mi yëpp mu mën ko yeggaleeg jàmm jërëjëf merci